asalaamaaleykum mbokku internetu jàmm ji info euh, point net mbokki yi ni ñu koy safoo di defee saa su ne seen jotaay jàngat euh, noo ko jàngatee nu ma koy faral di waxee saa su daañu dem ci euh, li nga xam ne ci sport bi ci bi waaye itam dinañ dem ci wàllu li nga xam ne lutte mu nga xam ne sunu maanaam sport national bi nga xam ne yaakaar naa ne kenn du ko naatamle tey nag mbokk ñu ngi fii ci Soumbédioune école Soumbédioune fi nga xam ne mooy écrit Soumbédioune bu ñu ko waxee tamit ne moo di Boy Kairé fekk si balaa ñuy sori dañ koy jox kàddu gi rek mu daal di nuyu bu ko defee rek ñu mën a daal di dem ci waxtaan bi papa la. waaw fay nañ la di am euh, mbégte lool waaw gannaaw nag bu ñu sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa am kontaan te loolu fi nga xam ne moom mooy écurie Soumbédioune Soumbédioune nag boo ko déggee mooy diggante village artisanal de Soumbédioune la ak géej gi waaw donc euh, donc emblème boobu lañ jël sax boole dëkk fi aussi. waaw ah, boole fi lañ dëkk fi lañ juddoo fi lañ màggee fi lañ yaroo donc moo tax daa écrit bi fi mooy base bi ñu indi ko fii nag waaw donc di leen wax rek dal leen jàmm bisimilah. jërëjëf euh, papa mu mel ni euh, tey fi ñu jëm directement rek ba ñu mënoon wax tuuti xam naa ne buñ koy doon euh, wax moom xam naa ne sa parcours moom dafay gudd waaye tuuti rek ba ñu mënoon tënkal ci sa parcours tuuti rek loo ñuy wax. waaw bi si njëkk rek mooy que macha allah bëri def naa ay at yu bëree bëri ci làmb ji di ko sant yàlla nag. parce que un sportif au Sénégal yàlla dimbali la si sutura ak mbaaxam nga def 27 ans de carrière c'est pas à la portée de tout le monde donc loolu sant yàlla nag bu baax a baax a baax la xam ne yàlla moom ma defar loolu ci yaa vi donc ma do am palmarès boo xam ne tey mun naa ne ba tey may wax ak yow ñu amagul benn mbër boo xam ne battre na sama record xam nga ñii ay 18 combats ñii 19 ñii 20 donc yàlla may na nag 26 victoire ci làmb ji ba tey booy yi kenn kenn dabaguma donc loolu rek euh, maanaam loolu na ci. ci palmarès. waaw li ci des nag mooy que loolu rek laa leen lancé ñoom nañ ñëw fexe battre battre battre record bi man ku ko ci def man maa lay décorer <laughs> man maa lay décorer. mu mm. euh, mm. ngi ñëw fii tey muy écurie euh, Soumbédioune euh, fa ban ban ban ban jamono lañ ko sos ak Soumbédioune bi tamit xam naa ne rek dañu jël décor bi tuddee ko ko mais ak ñaata mbër ñooy yeewoo fi lutteurs yi. waaw di sant yàlla di sant yàlla bu baax parce que man dama am vécu ci làmb ji jaar plusieurs écuries ah, jaar écurie Mermoz Kamal Salame moo ko créé woon. yàlla ko yàlla yërëm bi ma fa nekkee quelque temps jóge fa aussi dem euh, écurie Fass nekk fa nekk fa parce que écurie mag la woon nee nañ sax Fass c'est l'université effectivement université si wàllu làmb tu as vu donc ñu dem a dem a dem ba benn certain temps ma xam ne daal dafa jot ma kere sama yëfu bopp. waaw par respect toog waxtaan ak mag ñëpp waxtaan ak ñoom xamal leen daal bon dama bëgg ngeen ñaanal ma parce que su ma jun mag ñi dajaloo nañu vraiment pour ma ubbi écurie donc c'était en 1999 te loolu boo xool boobaag léegi. am na ñaar fukki at ak ak tuuti quoi maanaam janvier mi ñu dugg nii donc ñaar fukki at ci créé écrit kooku sant yàlla la. waaw sant yàlla dem nañ sax ba léegi sama njaboot nga xam ne moom la ma yàlla jox maanaam ku mel ni ñoom Diène Kayre ak ay morom ay rakam dem ba léegi fekk si ma mais tuuti depuis quatre-vingt-dix-neuf maa fi nekkoon dem ba taarixu làmb tey jii maa dem ba final ak Modou Lo loolu moom <laughs> nit ñi fekk nañ ko te jamono boobu maa ngi dugg si quarante quelques années yi vraiment ñu jamono boobu gars yi foogoon nañ sax carrière bi jeex na mais loo gis rek Pastef ak Pastef sañ-sañ. ak bëgg rek moo taxaw sax ba mu à quarante plus de quarante ma dem finalu ci calaf boobu nga xam ne Gaston Mbengue moo ko moo ko ko organisé si gi la xale yi commencé bon ñëw sama ginnaaw ñëw sama ginnaaw ba tey daal écurie bi moom moo nekk nii quoi. Mhm. Euh, mu nekk loo xam ne am na solo mbokk yi seen jotaay noo ko jàngatee ak sunu père tey euh, Boy Kare fii ci école de lutte bi fii ci Soumbédioune kon di leen fàttali rek mën ngeen wéy di abonné ci compte YouTube bi di bëggoon nañoo xam tamit euh, sa relation ak euh, ki nga xamante ni sa naataangoo di euh, Lac de Guiers numéro un. mu mel ni bëggoon naa tuuti nga wax ma seen relation yéen ñaar. waaw mais Lac de Guiers numéro un moom comme ni ko olof yi di waxee rek maanaam altine la ak talaata. waaye laa lundi <laughs> ak mardi tiyaab yi yàllaa ñu boole woon nag bi ñu doon xale maak moom mu dëkkoon fii ci Medina bi ñu dëkk fa yàlla relation bi nag fa la jóge woon. ba tey samay parents man ak parents ñu taxaw teg ñu ñun ñaar ñu taxaw vraiment ñu. ñu wax ak ñun ñaar ne àdduna bu mu yàgg ba ngeen mës a bëre buñ sañoon def leen ñi doon benn te ñu bëri nag xamuñu ne maa ak moom ñoo nekkul écurie Mermoz après la ko waala waala soxla daal di ko mujjee jëlee écurie bu indi ko écurie waala samp ko mu tag mu samp foofu quoi donc lu boobu yàgg na tey boo leen xoolee sax euh, ba say samay njaboot bu ñu daan bëre bon maa ngi koy nuyu au passage actuellement mi ngi États-Unis sax quoi donc maa ngi koy nuyu au passage sama njaboot dañ ñëpp gis nañ ne dama dama ko jëloon xale yi confier leen ko woon su daan bari sax moom moo doon taxaw sama taxawaay moom moom moo ko daan euh, moom moo daan taxaw noonu donc maa moom relation bi dafa fort trop waaw këram tey lu fa am maa fay jiitu sama kër lu fi am moo fay jiitu donc loolu moo doon relation bi ko waaw. Euh, père nag ñu dugg tuuti ci côté lutte bi euh, ci wàllu surtout mystique père ndax mës nga gëm nga réelement ci wàllu làmb mystique carrément que mystique am na. mystique bu baax a baax a baax gëmantoo ma ko ndànk sax. Euh, mais mais mais fan nga mën a fàttali ko rek nga baal ñu tuuti rek ndax boo waxee loolu rek damay sa a jëlaat question bi ndax ba nga nee am nga rek d'accord nga. Euh, mystique mës jàpp ci làmb. bu baax a baax jàpp na ma man mystique jàpp na ba euh, sam benn benn combat contre ku wax docteur Faye. boobu dañ ma jàpp dëgg dëgg dëgg de ba ma xam ne tey dañ ma jàpp mystiquement. Mhm. waaw dañ ma jàpp ma xam ne tey vraiment dama ñëw làmb ci sax pour man daal waaw. pour man daal lii làmb tey bi yéem na ma quoi parce que <laughs> euh, jaxasoo naa bu ma dawee pour échauffement sax di sonn sonn yoo xam ne ma su ma dal. sama yaram tiaabil musique si làmb loolu rek maanaam dañuy fexe say say articulation say cër ñu téye ko jël say xel jaxase ko ba nga xam ne boo waree dóor <laughs> da ngay song boo waree tiaabi donc musique loolu la quoi sa yaram du sawar dangay ngay diis parce que musique loolu la dañ lay sëf ñuy mun a takk-takk la tiaabi loolu waaw ëpp na tool <laughs> d'accord kon daal euh, euh, làmb moom ak musique ñoo ànd ala kulli balaa nga ko doon xam nañ la fay nga tëdd di nelaw nga xaar ba bés ba nga ñëw nga bañ a mi si nga xool soo ko defee est-ce que sax da nga ñëw làmb ja damay ragal say waa kër dañ lay yee naan la jóge muy la am solo kon nag mystique euh, lu réel la tamit lu nekk loo xam te lu am la dégg ngeen ni mu ko waxee euh, ana sa xarit euh, ndax dañ la gis père fi ma waroon njëkkee sax muy muy li nga xamante ni foofu sax laa waroon njëkkee ah muy wax fa dëgg yàlla ci wàllu yar bi monde bi yëpp dak accepté nañ ko discipline bi tey sa xarit laa laaj yaaw yaaw jàll <laughs> nee na yaaw jaal non sama kooku sama doom la. waaw sama doom la des fois nag àdduna moom euh, erreur day am rek. erreur day am sama doom la suma suma lépp la suma xarit la. Mhm, mhm. mais yenn saa yi nit dafay juum. te juum bi yëpp euh, ci moom la jógee yàlla xam na loolu man du ma wax mukk lu ma gëmul. mooy jamono arène nationale nest pas. waaw boobu la parce que dama ñëw. lu toll ni arène national euh, inaugure doon inauguration je crois remise de clé la woon quoi tu as vu remise de la woon. te li may wax yàlla nga may seede tey jii fi ma toll ci làmb et sama doom maanaam ki ma jur dëgg laa koy wax keneen ku ma jubal te maas ak sama doom yi aussi dëgg laa koy wax bi ma ñëwee ñu fekk ma fekk dafa ñëw fekk ma fekk fa histoire muy muy muy xëccoonteeg mbër yi baabooy mu ngi may dégg ah. lees de ñu ngi may dégg ñoo ñëw ne ma ne ma grand ma ñoom ne ma jógal jógal nga ñëw fay lakk gi sinon boo fayul lakk gi soo fayul lakk gi lii tey humiliation lay doon pour ñun mbër yi parce que waruñu fi nekk tey war a inauguré Macky Sall toog ak Xi Jinping mu am ay tiraillement yàlla xam na loolu. ma daal di jóg woo ko ne ko fii mu ñëw ma ne ko bésu tey bésu ay ay dix mille rek lañ fi lañ fi war a def prestation. donc te buñ fi nekkee di xuloo suñu biir dinañ ñu xeeb trop. noonu la ñu waxtaanee léegi nag bi ñuy duggaat euh, garde rapproché yi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak euh, président ñoom ñoo ko bloqué donc moom si maanaam ci ni mu xamul mu foog ne. man maa ko génnee pour ñu bloqué ko ko man je respecte tout le monde man kuy nit rek dama lay jox cër. donc mu jàpp si xel na man dama ko génn te man man am na jeu yoo xam ne dama ko def si àdduna dara jaralu ma ko ci àdduna. ni nga ko waxee sa doom la ndax jàmm dellu si waat na j'espère yéen a ngi déggante ak yooyu. waaw non ja <laughs> jàmm dellu si na man moom euh, l'essentiel bu doon nag euh, li may wax ni bu fekkoon ne maa nekkul si dëgg dinaa dem ba si moom ne ko fiis baal maax mais moom moo juum parce que xëy na ni mu ni mu ko interprété du noonu. anam loolu tey jeex na ngi suñu ginnaaw. donc c'est mon fils et la vie continue. macha allah mhm. euh, père mu mel ni itam defoon nañ la fi rendre nañ la fi hommage nga euh, ñu rendre la hommage peuple bi maanaam mbër mbër boo bëree ba ba bàyyi bëri euh, bés boobu naka la la def bésu bésu bésu rendre hommage boobu ñu la rendre hommage nga war a teg sa sa sa ngëm bi ci làmb. mu doon jubilé bi je crois bien que tey da nga ñëwaat si loo xam ne histoire la woon macha allah lu lu yéeme sax parce que loolu yëpp si xeetu sant yàlla la rek. nee naa la carrière ku ko yàlla may 27 ans de carrière kooku ba ba su sant la woon et puis peuple euh, euh, population sénégalaise si jàppale ma ah. mm-hmm. rawatina tey ki nga xam ne tey mu ne Medina yàlla def ko ne ñu am nañ si moom yaakaar muy Cheikh Ahmed Tidiane Ba mm-hmm. ah mm-hmm. vraiment taxaw ci taxawaay bu am solo tey bu ma demee ba def jubilé yàlla ak moom moo tax parce que bàyyi naa presque cinq ans mënu ko def di ko waaj mais moo ñëw na man du yoon ak li nga def Sénégal wara a jubilé mënoo ko def lan mooy problème bi ma ne ko problème ay moyens la mu génnee ay moyens def ay moyens ma def jubilé boo xam ne trois jours la vendredi wàccee ay kaamil ñaanal képp kuy jullit laay wax rawatina mbëru làmb yi nga xam ne ak amateurs yi nga xam ne génn nañu àdduna ñu def ko ci àjjuma ji vraiment mu doonoon euh, trois jours yoo xam ne Medina yëngu woon na keroog. ci ndax la ndax ndax Cheikh Ahmed Tidiane Ba. donc maa ngi koy gërëm di ko sant si loolu nga xam ne macha allah defaloon na ma ko sama jubilé.